mbokk yi jërë ngeen jëf yéen ñi nga xam ni yéen ngi bàyyi xel Dakaractu euh, édition 2019 bu caravane bu lu tubaa kon euh, fii lay démarré ci euh, fi nga xam ni mooy juma Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul mu nekk kon juróom-benn fan yu nga xam ne kon dañ ko war a ànd ak dem ci dig-digal bi moo xam njaareem dana dem it ba Dendey waaye dana dem Xombol ak fu mel ni Refaan foofee sax la ñuy tëjee caravane bi lépp lu nga xam ne incha allah dana tukkee ci ay xibaar danañ ko ànd ak yéen ci Dakaractu caravane bi nga xam ne moom la ñuy amal. ngir la ko màggalu Touba te di ko wax karawaan grand màggal de Touba karawaan boobu nga xam ne dox nañ ko lu toll ci juróom-ñetti at jàpp juróom-ñeenti at te mu ne kon ndigal lu bàyyi ko ci Serigne Touba Cheikh Sidi El Moukhtar yàlla na yàlla doole ay leeram wàcc si waat ci Serigne Touba Cheikh Mouhamadul Mountakha yàlla na ko fi yàlla gën a yàggal lool te gën a dolli ak wéram mu jaar nag ci Cheikh Mouhamadul Bachir moom Cheikh Abdoul Khadir mi nga xam ne. moo yor lépp lu jëm ci wàllu organisation màggalu Touba waaye moo yore it kaddu xalif général kullu murit yàlla na ko yàlla jàppaleel boppam. mu wàcc ci commission bi nga xam ne moo yor communication ak culture te Serigne Cheikh Abdou Lahad Mbacké Gaynde ma jiite ko te di ko taxawee ak yi yëpp ñu di ko ànd ak moom te muy njiitu liggéey bi. waaye mu jaar si nag ci Serigne Moudou Mbacké si moom Serigne Moustapha si moom Serigne Malick Bassine mu ànd ko ak Serigne Euh, Serigne Cheikh Diakhaté Tindodi waaye bokk ci ñi saytu lépp lu jëm ci wàllu alquran ci dëkk bii di Touba waaye fegoo ci ak Serigne Fallou si ak seen mbokkum taalibe mii di wax ak yéen Fallou Galas si la ñu fegoo ci ak Serigne Moustapha Mbaye ñu fas yéenee nag tàmbali liggéey bi tey jii euh, di euh, dimanche yemoo ak ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru tubaab yemoo ak séntu bu njëkk ci weeru wolof ñu taxaw fii ci résidence Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasoul bi nekk ci jumaa ji fas yéene tàmbali liggéey bi waajale ko nag incha allahu rabbi ci kanam tuuti danañ dem ci Cheikh Mahamadul Basir moom Cheikh Abdoul Khadir mu yëkkati déclaration bi nga xam ne baaxoo na di ko def bu nu fa jógee danañ daal di jàll kër euh, Cheikh Mouhamadou Lamine Baara fekk fa Serigne Moustapha mi nga xam ne mooy xalifam Cheikh Mouhamadou Lamine Baara mu ànd ak njabootu Cheikh Mouhamadou Lamine Baara gi ñu am mbégte bu baax a nag ci béréb bii nga xam ne da ngeen fee ñëw te ñu bari tamit umpale ko ndax man nga ne euh, sëriñ Baara mi mi tax ngeen jóg di tàmbalee si fii karawaan bi tey doom la ci sëriñ Touba bokk ak sëriñ Modou Moustapha ndey ak baay waajuram bu jigéen di soxna Aminata Lo histoire am dégg ko yàlla may sëriñ Baara moomu itam bu ma juumul menn moom képp ci doom ju góori sëriñ Touba moo juddoo fii ci Touba juddoo fii sëñ bi tëdd ci jumaa ji loolu nekk beneen cër eh, yàlla dogal mu jóge ca Daaru Xuddoos tamit dikk sanc guy mbind gii guy mbind gii bi ko sëriñ Baye sanc dañoo wax ni ku fi bay dee moom mu ñëw dëkk si fii dañoo dëkkoon ko kenn ñu mawu fee moom mu ñëw dëkk si fi def ko ba mu mel nii tey yàlla dogal tamit fii taxaw nii moo nekkoon néeg bi nga xam ne ci la dëkkoon Cheikh Cheikh Cheikh Sidi Muxtaar moo ma ko wax ci làmmiñam bi mu fii def jàkka ju jëkk ja wen gi fi newoon ñu daggal ko mu wax ni wen gi moo nekkoon ci buntu néeg sëñ Baara Cheikh Sidi Muxtaar daf fi jàkka ñu ci julli ba mu yàgg mu ni fii lu ëpp loolu war na fee nekk daa dafiy tàmbali jumaa ji loolu mooy fii nu taxaw nii tey loolu itam mooy historique gu guy mbind ci ci ci ci ci ni ko mën a misaale yàlla dogal tamit guy nekkoon fe goo nga xam ne ñi ëpp xamuñu ko sax jàpp nañ ni gii la waaye ma nga woon fëlee ca wetu kër Maawa dañ doon wax ni ku ci bind sa tur do dem sawara moy moy lenn ci ci ci historique bi bi ci sëñ mustapha nek itam lepp lo nga xam kilifa am yoyu dañ ko tàmbali won di ci sëñ di ci Cheikh sidou mukhtar ba mu yeksi fi mu dundal ko dundu gu wer doxal ko dox gu wer teye ko teye gu wer itam yaatal njabot yep yëpp nangu jaaxaan tëdd ñëpp war ci koom du wax kenn ni lutax nga nga tok fi wala lutax nga def li kon Cheikh Sidi Muxtaar nii mu ko defee fii itam na la ko defee ci Mbàkke Kajoor kon ña ko jiitu woon di sëñ Modou Baara lañu fi def ba dem sëñ Abdou si ñëw def ko ba dem moom itam bi mu ñëwee bay na ci aw laajtam jëf fi ba àdduna gis li mu jëf wocc ko fi dem ndax naal wii jàkk jiñ fi toje man ñii la ko doon eh, jumaa ji man ñii la ko doon taxawloo jàkk ji ñu fi toje doyoon na sëkk waaye def ni sëñ Baara yelloo na leneen lu raw lii ci bërëb bi nga xam ne dafay nekkoon te ñu di ko moomale suñu borom kon nañu ko defaraat ba méngoo ak béréb yi yëpp moo waral ñu defaraat fii ba mu mel kon Cheikh Sidi Moukhtar lépp loo xam ne waroon na ko ci ab toogaayam jëf na ko dox na ko wax na ko waaye guy mbind gii daal li ko fi waroon lépp def na ko te ñëpp teg na ci seen bët bërëb bi ñu taxaw wane na ko ndax eh, teud gi mu ñew teud fi du azar du azar ndax tak lima wax ni sëñ Muntaxa dem ko fekk ci fete yi sëñ touba mu tok nga ne ko lo fi def ndax da topé ba tok fa ñu diko top waye waaye sëñ Sidi Muxtaar kenn ko fekk fi mu teud nga ne ko fi nga teud lo fi def ndax fo gesto gis lu mu def wala nga dekk ko wala nga xam ko ba nga fekk kon man na wax ni li moy historique bu barab bi